moom mosul ñëw di la wax dara est-ce que tamit waxam leer na. déedéet staan waxam kiiwul. ginnaaw bi nga yëgee mbir mi noo def. damaa xam ne yàlla loolu yàlla dogal dogal yàlla mu ngi mën ci dara. moom ana papam caara jóob jóob laa sant xanaa jàngi rek ñëwul doomu de laa ci am ngoon gi daal yaayam sang na ko fii solal ko yére fii muy muy muy muy jàngi rek dellu si loolu rek laa ci am de moom dañ ko rey sànni ko ci foos bi wala ah ña fa demoon de loolu la wax ne man egg gisaguma ko ñëpp ñu fa demoon daal ñu ko ak loolu la ñu wax waa waaw na daal ca foos ba lañ ko fekk loolu la ñu wax. waaw ah, xale yi moom sobéeg la jàngi wala si ngoonte la jàngi wala moom bi mu gontoo la mbir mi am. ci ngoon bi ma añee ba pare la jàngi bi mu jullee tisbaar ba pare bi ba aaru ngont bi la dem gontu jàngi. Hmm, déedéet dellusiwaatul. ngeen ko doon wër ñetti fan gis leen ko. laay ñetti fan ñu di ko ko wër. waaw ñetti fan ñu di ko ko wër. loolu daal lan ci am. de laa ci am. xale bi moom ñaata at la am. nee dugg na ñeenti at. Hmm. waaw man Assane maa Assane Diop maa maay bàyyi maay bàyyi euh, xale bu jigéen bi jur xale xale boobu ñu dugaloon bi demee daal mooy euh, dafa daan xëy di jàngi bu wàccee ñibbisi bu ngoonee mu gontu dem ngoon gi nag ci lañu gontu dem te dara ànd ak ay magamit dem bu ñuy ñëw it ñooy ñëw ngoon gi ñëw waa dem ñibbisi ah naa diggante boobu daal lu fi foofu la xewe ñu jógee ca daara ja war a ñibbisi diggante boobu daal lu fi xew foofa la xew waaye ñoom dañ daa dañ ñëw ak groupe lañ daa doon ndax ay mag rakk lañ ñoo doon groupe boo dem bu ñu wàccee ànd ak ñoom. àllarba ñu nag bu ko ne ñëwee ñu laaj ko ñu laaj xale yi ni leen ana ana ana Ndeye Ndiaye ñu ni Ndeye Ndiaye day mu nga daara ja yaayam dem fa laaj laaj ko sax da ko woo daa jëkk woo sax oustaz bi laaj ko mu ne ko mu ne ko Ndeye Ndiaye kat nekku fi moom mu yaakaar ni daa ne ci kër yi ci des ci kër ma mbokkam yi ci mu dem fa seet ko seet gisu ko bu mu ko seetee seet gisu ko nag ci lañ ma yóbba euh, euh, xamal ni ma ndey jaay kat euh, daa daa riir. jamono bi ngeen gisee ni dañ ko sànni si biir fosse bi yooyu yan heure la woon yooyu yan heure la tombé la guddi la woon wala bëccëg. benn ngoon gi rek. ngoon ngoonu àllarba bi. ngoonu àllarba bi. waaw bi mu waree ñibbisi war a ànd xel ñibbisi gune yi da koo jiitu. Mm-hmm. ñëwul. mu yaayam laaj leen ni leen ana Ndeye Ndiaye mu ne Ndeye Ndiaye ñu ngi ko bàyyi daara ñu ko bàyyi daara ja moom mu dem mu dem mu dem mu dem fekku fa xale ba àndoon naa wax nañ ma ne ñu ma àndoon naa xale yi bay jóg ñëw wax loolu wax nañ ma ko waaye moom moom danga naa wax nañ ma rek léegi nag léegi nag moom tooy bu mu demee ca daara ji nag xool ko gisu ko nag foofa lañ ko mujj gise ñu ñu ñu yaakaar ni xëy na daa daa daa daa réer ñu topp di ko wër ñaari fan alxames bi ak ak àjjuma. Euh, papa léegi yéen lan moo leen xamal ni xale bi dañ ko sànni ci biir foos bi. alxames bi ñu bi bi ñu wëree ci guddi euh, guddi àllarba boobu. balaa ne ko wër. ba ah, ah, asamaan seet di alxames ñu yëndoo wër. ba àjjuma bi ñu yëndoo wër ba guddi. Mhm. ba guddi nag ca la benn waay doon dem ca doon dem ca foos ba. comme moom foofa foofa la ne. mu xool na euh, kubéeru foos bi mu xool ni ni mu meloon melatul. mu ne kon foos bi daal te te dañ ko dañoo dëpp kubéer gi ndax waaye dañu ko xaw dañu ko daaj dañu ko nee nañ dëpp dëpp dëpp ko xam naa daa yàkkam ci nag ci la ko ci la ko duppee ba mu ko duppee nag dañ ko bëgg a yëg ko nii rek seen seen kanam mu sëy ci biir lii lañ lañ waaw ñun de ñun de bi ñu ciy jot booba bi ma daal bi ñu may woo di ma ko wax booba booba dix heures passé na dix heures passé na waaw ajuma waaw ajuma ci guddi hmm. booba dix heures passé kan ngeen njort ni moom moo def euh, ñaawteef boobu tey ji bu soobee yàlla hmm. ñu ngi noonu ñu ngi dem Thiès hmm. pour pour ñu jël ko yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko Dakar pour ñu dem mm. mm. côté la ñu gën a xam ne dëgg-dëgg mbir mi la ko dama lay waxal ñu en attendant rek mais. Mm. man wax dëgg yàlla lu leer nañu mënu ko wax lu dul. lu dul autopsie daal daal yéen ñu xam ne ñoom ñoo ñoo def ko def. ah waaw xale bi moom ana ay waajuram waajuram ñu góor ak ñu ngi fi wala nekkuñu fi. waaw yaay mu ngi fi yaay ngi fi mbaa moom daa ba daa ba néew fi mu ngi Italie. waaw lii moom day faral dem ci dëkk bi wala lii mu ngi fi doog a dem. lii kay mosuñu koo gis. lii kay guleet lii tund jandeer bi lii tund jandeer bi musuma fee dégg lu mel nii. Ah, man bokk musuma ko fee dégg. bu mu fi soog a mu fi soog a am. ci yàlla suñu borom. lu nu waar de. waaye te su tey bi naqari na di. naqari na de xanaa di di artuwaat ci waa